سار وفي سفر jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcce ngalaama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér ami téléspectateur wu Tacko TV la lumière di cœur ñu ngi fii ci Touba Mbacké ñu ngi fii di waajal li nga xam ne mooy màggal gi mu war a am fii ki bés rek yu bariwul ñu fas yéene ko ànd ak waa Touba fas ko dund ak waa Touba fas yéene dund ak ñi nga xamante ni ñooy jóge ci dëkk yi. di ñëw di màggal si fas ko dund ak ñi nga xam ni ñooy jóge Europe ak feneen ak feneen di ñëw di màggal si dinañ leen découvriral li xew ci màggal gi waxtaan ak mbokk taalibe yi ndax màggal gi boromam wàcc na def na lu ko war kon ñun ñi nga xam ne ñun ñooy taalibe yi ñun ñoo war a eggale sunu mébét yoonu sëriñ bi ndax sëriñ bi wa defal nañu lépp ba tey ñu koy santale bisam bii di ko ci santale yàlla kon tey bu ñëwee fii ci Touba war nañ ko dund war nañ ko yëg war nañ santiir ne ñun dañoo ñëw màggal si war nañ sentir ne ñun dañoo ñëw pour jaamu yàlla kon tey Tacko TV ñëw fii jël si leen ko fa seenee dund li nga xamante ne mooy màggal gi borom màggal gi moo demoon Gabon jaar Mayomba jaar Libreville sëñ Bamba ci tukki bu sori bi kooku moo demoon gouvernance signature am ba léegi moom moom la gaañi di waxtaanee ku dul bàyyi Serigne Saliou sa signature sa signature a nga ndar kenn du Serigne Touba moom rek moo jàkkaarloo woon ak tubaab bi ne ko lu suñu borom wax loolu laay def lu suñu borom digle loolu laay def kon tey ñi ngi fii ci Touba fu seen and ak yéen découvrir leen li ngeen xam ne moo xew ci màggal bi jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu ngi def loolu waaye tamit ñëpp loolu lañu war a def waaw gan moom accueillir bu njëkk moom mooy sa kanam yaatal sa kanam rafetal sa kanam ba wàcc la lii moom loolu sëñ bi sa moo ko wax loolu ndigal ko war a jëfee ndigal moom jëfee waaw loolu loolu lu war la moom wàcc lal jox ko gan yi mbooleen li nga am lépp nga jox leen def la nga man loola Seexul Xadim santaane nañ dëkk ci dëkk bi di ko teral ganam yi waaw ñun loolu moo tax ñu am fierté pour dëkk Touba waaw bu mel ne gan yi nag daa mel ne ñëpp ñëwaguñ waaw waaw fi mu nekk nii moom ñëpp ñëwaguñ waaye nag ñu bari ñëw nañ nag ñu bari ñëw nañ mais xëy na coono yi voyage yi ñoom seen yooyu xëy na moom moo tax quoi mais incha allahu rabbi xam naa ne suba ak ginnaaw suba moom yaakaar naa fii moom boo sànnee mbatt moo tak moom wér tey ñu ñëw fekk la fi nga xam ne mooy Touba ngay door a egsi tey naka nga dundee màggal gi bi nga egsee fii ci Touba. ah màggal gi moom tawféex rek macha allah parce que Touba moom euh, daanaka saa yoo bës boo ñëwee daal muy gën a yokk tawféex ñëw nañ nag démb démb si ngoon lañ fi lañ fi yegg si daanaka euh, mbégte daal ànd nañoo mbégte ànd nañoo tawféex ñëw fekk ji Serigne Bamba ànd ak moom si cant gu ne nañ ko ñëw cantale parce que màggal gi dañ koy santale ànd ak moom santal santale ko borom bi. waaw si loolu da lañ ñëw macha allah. yow mën nga ñoo wax fan nga jógee ba ñëw teew fii Touba. yow maa ngi jógee Dakar dakaar ma laa jógee ñëw. yoon bi maa métti. ah yoon bi moom Touba moom booy ñëw mën nga ne mbégte la parce que lu muy métti métti rek la. parce que nu nga nu nga amee yitte ñëw noonu la noonu la jaam yëpp amee ki yitte ñëw waaw kon moom nañ jàpp ne métti daal méttit amul waaw ñëw rek fekk ji Bàmba la <laughs> waaw xanaa di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba si barke Sëñ Fallou si barke Sëñ Fallou puisque place bi ñu taxaw nii barabu barabu Serigne Fallou Mbacké la ñun yëpp ay taalibe lañu dañuy ñaan yàlla ak yonente beeg Serigne Touba mi woote màggal gi ah mboolem ku fi ñëw yàlla delloo la ci jàmm kenn bañ a feebar kenn bañ a jàmbat dara ñu ngi sant encore sëñ Mountakha bu baax a baax a baax a baax ñu ngi sant borom barab bi sëñ parce que ñun waa Kër Sëñ Fallou lañu amuñu kenn ku dul waa Kër Sëñ fa yi yéen journaliste yi itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax amuñu seen njukkal puisque lu toll ni màggalu Touba ngeen ñëw fi te gis ngeen coono bi ngeen di daj fii bu yeboo ñu sant leen ñu gërëm leen ñun yëpp ñu àndandoo ñu wax jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba nañu wax jërëjëf Serigne Fallilou Mbacké parce que place bi ñu taxaw nii place su f Fallou la ñu ngi bu wér yéen nañ leen ñaanal seen liggéey bi gën a dem ci kanam seytaane bañ leen a not ci benn boor ngeen toppatee seen liggéey bu baax a baax a baax a baax a baax puisque yoonu kër Serigne Touba yi képp ku ci nekk na nga góorgóorlu na nga góorgóorlu nga jaamu yàlla nga fonk waa kër sëriñ tuubaay yi yàlla nañ yàlla defal jàmm. bég rek beg beg beg kontaan kontaan bu baax a baax a baax di leen sant mboolem ku fi ñëw magal bi yàlla na la Serigne Touba ak ak sëñ Fallou yéen itam yéen am liggéey bi yàlla na leen sëñ Touba taxaw taxaw leen ngeen demal demal dem bëgg seen njaboot bi toog ngeen di mun di liggéey di leen indi barki sëñ Fallou barki maam si Ibra Fall bu ñu bokk waaw dama tàggoon dama kontaan ci yéen kontaan naa trop trop trop trop. mu mel ne màggal gi neexagum na te demaguñ fenn. màggal bi boobu neex na bu pare. Ah. neex bu pare. sëñ Touba lu mu jiit rek neex na waaw. waa Alahira bëgg nañu waa addina bëgg nañu. ñëpp a kontaan ñëpp a kontaan. ñu ngi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm. xarit ziar naa naa la. tey ñu fekk fi nga xam ne mooy Touba ñu taxaw bundu kër sëñ Fallou tey lan naka nga yëg bi nga teewee Touba. Touba moom neex na moom. sa sëñ bi moom defar defar na nu moom. baak sëñ Fallou. sëñ bi moom defar defar na ñëpp. ku fi ku fi teg tànk rek di di nga xam ne sëñ sëñ bi defar na Touba waaw. màggal gi naka nga ko dundeegum diir bi nga teeweeg léegi. ah neex na torop lool lool loolu daal am na fi moom. neex na torop te te kenn kenn kenn sonn fi. yow lu ñuy wanee nu gum ne màggal gi neex na ci yow lan moo ñuy wanee gum ne màggal gi neex na ci ah, xanaa fooy tëdd ak fooy fooy dalloog fooy fooy kii fooy fooy fooy lekkee fooy naanee. yow loolu ma la wax màggal gi neex na. waaw waaw. mun taxaa yàgg fi rek ànd ak wér. awa ah, dëgg fa neex moom am naa yëg-yëg bu neex sax parce que c'est la première fois ma ñëw Touba moo tax. waaw ah, yaa a ñëw Touba. waaw. bi nga ñëwee ne teg sa tànk ci dëkk bi lan nga yëg sentir. ah maa ngi sentir lu neex sax fa neex ndax loo jógee loo gis sa la nekk loolu laa yëg daal. te te gi ñëwagul. te màggal gi ñëwagul gisoo. kon màggal gi nan la nar a <laughs> moom a jaaxal màggal gi daal nar a xum te dagan rek. may def sëñ moo ko waral. waaw ak ay mbokkam. fi mu toll nii looy waajal. may waajal dugg si jumaa ji ziyaare ziyaare xabru yi. ah macha allah sant sëñ bi rek dellu sant ndax liñ fi gis ni mbégte rek lañ fi gis moom ak kontaante mi fi ñëwee yàggul euh, kii bi commencé gul mais sant alhamdulilah neex na trop te dara commencé gul incha allah. mais mais mais tey yéen lan moo ñuy wane ne màggal gi neexagum na ci yéen. ah dañoo rek. presque ñëg seeguñu sax ndeysaan gan yi dañoo kontaan bay bëgg a dee dalal ñu ah comme siika ñun ah ñun daal ñoom daal dañoo kontaan def ñu seen bopp wàcc lal yëpp jox ñu ah am nañ mbégte daal lool waaye ganelal nañ ñu te dara xewagul. mel na yéen fi ñu leen moom neex na. neex na moom macha allah te dara xewagul. mais est-ce que nuru ne ñuy màggal si topp xewal yi ba far fër. non ñun dañuy nekk démb rek ñoo togg si manay démb rek ñoo dugg waay. waaw. macha allah lay ndaxte Touba dafa neex dëkk xiiwal la boo ñëwee moom da ngay kontaan. yaa ngi door a ñëw wala ñëw nga avant. non man damay ñëw màggal. waaw. nga egg si ci dëkk bi. démb si guddi. waaw. bi nga ñëwee naka nga dundee bisu tay bi avant màggal. ah xanaa kontaan rek ndaxte bis sëñ Touba moom mooy loolu moom. mais laal nga say verre xam nga loolu. <laughs> merci. Ah. merci. mais instant bii nii ci liggéey bi nga ne wala ci mbiru xéewal. si liggéey bi si laay nekk damaa ñëwoon pour si rek. waaw kon yow boo xoog ñi ñëw di seetaan. non non man damay ñëw pour siyaas. siyaar. ñu ñëw fekk la Touba fan nga jógee ba ñëw ci dëkk bi. Gambi Gambi laa jógee. Gambi nga waaw. fi nga jógee sori na. waaw torop. sëñ Touba yi ñu ko jaral. mais naka nga dundee yoonu Gambi ak Touba. ah xanaa neex yomb na yëpp yomb na. Mhm. méttiwul méttiwuluñ ko dara si benn yoon. waaw. ana sunu mbokku Gambi yaay. ñoom nga fa. si jàmm. <laughs> waaw. mais tey bi nga egsee naka nga dundee màggal gi te ñëw. a ah, neex xanaa nganare bi neex na lekk yu bari neen naan yu macha allah waaw. yaa door a màggal. déedéet bi mooy suma ñeenti yoon waaw. Gambia yi nekk nekk Gambie naka nga leen di wax yow mi nekk tuuba ah dama ne leen ne ñu ñëw rek. waaw dëkk bi daal jar naa ñëw. waaw. sant nga ci sa ay xéewal di waaw. ah kontaan rek. sant Serigne Touba di ko ñaanal yal na yàlla yokk ay reeram. yal nañu yàlla taas si barkeel. fan nga jógee ba ñëw. Gambie. waaw ñu ngi. ñu mel ne Gambie eh, nañ fi de. nañ fi bëri nañ fi su maagal jotee ñun ñëppay ñëw. yoon bi méttiwul. yoon bi méttiwul. yoon bi méttiwul ñu ñaanal sëñ bi. yal na yàlla yokk leeram te yal nañu yàlla taas si barkeel. su darajaay Sëriñ Fallou Mbacké. woon ni ñëw fii xoolaale maanaam histoire mouridisme ak yooyu noonu ju demee noonu moo tax ñu ñëwoon fii si biir Daara waaw. ziare Daaray Kaamil. waaw fan nga jógee ba tew man fii laa dëkk ne mais dafa dafa am sama boy yu ma àndaloon fii ñu dëkk luga ma ñëw fii di leen présenté dëkk fii. kon yow gan ñi nga bokk. waaw si laa bokk waaw. gan yi fas ñëw naka nga leen di accueillir. ah xanaa ji jéem a jéem a def niñ ko niñ ko waxee rek jéem a jéem a jéem leen a yaatal jéem leen a berneel hmm, génn léegi tamit aussi. dalal leen waaw dalal leen. luñ bëgg nga defa leen ko tamit te bañ ñaxtu. surtout loolu bañ a ñaxtu ndax xam ne lépp xéwul sëñ bi la rek. Tamba. Tambacounda waaye ñëw màggal si quoi. jóge Tamba ñëw Touba métti na. ah waaw métti na trop waaye suñ bi jar na lu ëpp lool waaw. jar na lu ëpp lool daal. yéen yow incha allah moom ñi fexe ko comme que fi ñu jógee moom sori na moom ñu ñëw liggéeyal ko mu rafet daal ñu delluwaat si jàmm salaam quoi. waaw mel na da ngaa ñëw profité pour ziara. waaw ñëw profité a xat quoi. waaw liggéey si borom Tuubaa gi fi mu toll nii neexagum ah. bi commencé la neex. Ah. waaw ñun laata ñuy yëg neexal bi kay léegi waa nekk ci di ñëkk a yëg quoi. loo ci santiragul yow. waaye sant ci santir kay rëy na xewal ak sant ak xol bu feex. Ah. waay. kon instant bi sant nga bu baax. bi bi mu commencé. laa commencé laa sant. ndeysaan wallaay. jërëjëf ñu ngi lay kontaan ñu ngi doole ziar bu baax. jaajëf Mouride ziar naa la. waaw ziar naa la bu baax jëwrin. tey la fii Touba fan nga jógee ci dëkk bi nga. man maa ngi jógee Casamance Casamance ngir sëñ Tuubaa rek ak bis bii nga xam si ma bisu màggal gi ndax sëñ Tuubaa moom jaral na lu ne kon bu de buñ fun mën a nekk ba nga xam si maanaam euh, bisu bisam bi agsi na dañuy bàyyi lépp luy def ñëw fii liggéeyal ko parce que ñun sëñ Tuubaa rek la ñu am amul lu sëñ Tuubaa sëñ tubaa ci lañ juddu ci lañ màgg ci lañ jar fu nekk ci lañ di dund kon buñ gisee lépp luy doxal sëñ bi rek ñun dañuy taxaw yéen itam ñu ngi leen sant seen taxawaay ak seen liggéey parce que lii mooy doxal mooy doxal réew mi te sëñ Tuubaa dafa wax ni ñi may liggéeyal fu ñu toll rek sama liggéey fu ñu toll dafa war dem ñun fan nekk ñu ngi fay liggéey Sëñ Tuubaa wér waaye yéen ñu ngi ñaan seen liggéey jëm kanam ngeen dem ba yor ay rajo ak i télé RTS bii ngeen yorit seen borom dimbali leen ci ngeen am place yu gën a kawe te ngeen ànd ci liggéey Sëñ Tuubaa nag parce que liggéey Sëñ Tuubaa moo fi xaw tey bu màggal gi jub see naka lañ koy dundee maanaam xanaa ba fas kii ne dajale lu waay am bu ñu amee suñuy café ak suñuy beñe ak suñuy xewal ñu jox ko ci dëkk ba bàyyi ko fa waa dëkk ba ñun ñi nga xam ne tey dañoo cosaanoo fii yaroo fii demoon fa ngir liggéey ñu takk li ñu am ñëw fii ànd ak sëriñ bi liggéeyal ko dellowaat fa di di jaamu suñ di di ko def ko liggéey Sëriñ Tuubaa tey ji am na oto yoo xam ne fa lañ déparé ay soose ay pël ak ñeneen ak ñeneen ndax Sëriñ Tuubaa moomum lépp tey ji lañ fay doog a di ñëw waaw ñun nag dañ ci loolu dañ ci sant Sëriñ Tuubaa rek di sant Sëriñ Tuubaa fu ñu toll ndax Sëriñ Tuubaa moom li mu mun ñu ko wax dañuy wax sax di tudd ay aaya wala ay bayit ndax sëñ bi moom dafa romb loolu waaye bëgg gin bëgg Sëriñ Tuubaa ak bëgg ko bëgg a liggéeyal lañ ko mënee waaw macha allah. daanee moom mbokku taalibe boobu mu mel ne Casamance da jógee gis nañ mbokku taalibe yi ñu ngi jóge fune ne ñi jóge Gambie ñi jóge fu di ñëw di màggal si mu mel ne Serigne Touba mbiram amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la murid yaa ngi jóge fële di ñëw ñi ngi taxaw buntu daaray Kaamil fa seenee waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy génnee ci ziar bi ñu taxaw fii waxtaan ak ñoom naka lañ dundee màggal gi murid ziar naa waaw doole ziar sëñ bi tey magal gi naka nga ko dundee ah waaw doole sant yàlla bu baax rek di ñaan rek ñu fekk ko ay déwén déwén waaye nag li ma la xamal mooy màggal gi at mu ne rek day gën a kéemaane rek day dem na ba sunu suñu sët ñu ne ñu ngi jógee dëkk bu ñuy wax Payar sori lool Payar men Payar sori lool lool ay oto woto lañ def topp yoon bi bari na ndox waa gisuñ kenn lu mooy sëñ Touba rek liggéeyal ko ba dee ci rek lañ nar incha allahu rabbi ñu ne li ñaanal yéen itam nag fanu gudd ànd wér gi ndax li baax na ci màggal gi fi mu toll nii neexagum na waaw sant yàlla bu baax a baax doole sant yàlla wax dëgg yàlla neex na ba dégg day wax dëgg yàlla waaw kéemtaan na lool waaw neex gi moom foo ko àpp passé na ko wax dëgg yàlla waaw jërëjëf alhamdulilah bàyyi laat congaan tubaa naa man maa ngi jóge ba Mbour Mbour waaw mais maa ngi dal dal fii nii kër sëñ Saliou a ak lu buuse bi nga ñëwee Touba lan nga yëg xanaa àndam mbégte ana ana mbégte màggal gi di sant Serigne Touba bu wër ndax lim ñu defal teraanga bi ñu defal nii amuñu fayam. mu yëg-yëg la murid yi am tey ni ñëwee Touba. yëg-yëg ndax boo dugg see si si dëkk bi yëg-yëg bi ngay am bokkul ak boo ak boo nekkee fële boo dugg see rek coono gi ngay yëg lu mu tar tar tar tar doo ko yëg nax mbégte coono mbégte lay doon ñun amuñu fayam dañuy ñaan yàlla rek moo am fayam mu fayal ñu ko. yéen a ngi dund màgg. ñu ngi koy dund bu baax baax te commencé gul. fu ngeen jëm. dañoo bëgg a dem bërëbu Sèye fa lañ bëgg a dem ziar. ndax Baabul Muridina. waaw ndax Baabul Muridina moom boo njëkkee fii boo demee fee lépp lay jël moo tax dañuy njëkkee si moom. soog a ñëw fii nii ziar kenn du moom ñaanal leen barke sa incha allah. ñaanal leen ni nga koy waxee nii neexagum na ci yow de. non neex na torop lekk yu bari nag mooy lool billaaye. fan nga dalee wa. non man maa ngi fii kër gi. kër gi nga dal. waaw. tey bi nga ñëwee tey lan ngay wax sama mbokku jigéen ñi nga xam ne ñoo màggal si. non màggal gi moom mooy lool. neex na bari nay nit. mais mooy lool daal. Sénégal dugg ci wàññi. waaw. Hmm. waaw. régal comme ñëpp. <laughs> waaw tey kay moom maay dugg wàññi ñëpp. Ah. <laughs> noo fas yéene duggee ci ah, nag sànca ba mu baax rek. Ah. waaw oyofal ko rek. billaay bisab suñu bamba bi moom lu si waay def lu ko réccu. billaay billaay ñaa ngi dellu ziar bu baax. merci waay. ziar naa leen soxna si. delloo ziar. tey fan ngeen jógee tey bu ñëw fii. ñun bawal lañ jógee. bawal. Mhm. tey bi nga ñëwee ci dëkk Serigne Touba bi loo ah, xanaa am mbégteeg bànneex lool dëgg fa neex yàlla Serigne moom mooy loolu. ñu kaa bëgg trop. lu ñu def si moom rek dañ koy xeeb. loolu la fi xol yi sedd na. waaw instant moom suñ xol yi sedd na wax dëgg fa neex yàlla. parce que bisu sëñ bi moom saa bu ñëwee rek comme niñ koy defee rek lañ koy defee ndax lii lépp boo xoolee tey ku tedd gi moo waral kon dañuy delloo gën a am kontaan rek waaw saabu bu ne rek ak nuñ koy defee rek fii moom boo fi ñëwee rek nga xam ne lépp ku tedd gi fagul nañu ko kon loolu tawfeex la. tey tey tey sa mbokk tut tànk yi nga xam ne ñooy ñëw fii ci dëkk bi boo amee loo leen di ñaax di leen ko dolli ñuy jóge Dakar di ñëw lan lay doon. maanaam boo ñëwee rek nga wane yar daal ak respect parce que am na ñeneen ñoo fekk ñu dalal la mooy waxaat sama saar gi ñi gën a góorgóorlu fonkaat xasida yi loolu tamit tawfeex la boo nekkee ndaw yéen yi danga ko war a bañ nga nekk si yoon bi nga xam ne mooy ku tedd gi kéel nañu ndax xasida yi. waaw dalal gan ñi rek yaa ma gën a xam. ngeen di dalalee gan yi ah xanaa ànd rek takku dalal gan ñi yaam gan gën a xam def jox leen ñu tëdd def berne leen lépp si bisu sëñ Bàmba bi rek waaw lépp lu leen defar rek doyul waaw. bu mel ne dalal gan yi yomb na yombul ndax génn sa dëkkuwaay jox ñi nga xam ne ñooy ñu ñu dëkk. sëñ Touba jar na ko mm, sëñ Touba jaral nañu lépp. Mm-hmm. lépp sëñ Touba la. ku ñëw si jumaa ji si béréb bii rek xam ne sëñ Touba jar na lépp. est-ce que kañ nga ci dëkk man ñëw naa démb ay guddi yooyu. guddi waaw waaw. bi nga ñëwee naka nga dundee màggal. ah macha allah neex na de moom macha allah. Hmm. waaw. gars yi gàtt ah, waaw fi mu toll sax am na lu des sax. lan moo des. ah <laughs> si biir siyaar. kan ngeen waaj a siyaare ji sëñ Saliou wala sëñ Fall wala ñëpp rek. ñëpp lañ bëgg a siyaar. Hmm. waaw. mais instant bi moom yaa ngi sentir màggal gi. ah waaw bu baax a baax. fi mu toll nii moom maa ngay sentir bu baax. Hmm, hmm. fi mu toll nii moom sama xol sedd na carrément. lan ngay wax ñi lay seetaan. a ah? lan ngay wax ñi lay seetaan. ah si kaw si kanam rek. lii moom wax dëgg fa yàlla mbégte la. wax dëgg. Dakar Kër Massar. Kër Massar waaw. incha allahu rabbi. bu màggal gi neex na te demagul fenn. neex na ba noppi kay balaa ñuy ñëw lañ yëg ñu neex na. de waaw ñu ngi lay jaajëfal. delloo nañ la ko. jërëjëf merci waay. ziar na. naa la ko. fan nga jóge ba teew. maa ngi jógee Dakar. Dakar. Kër Massar. bi nga ñëwee tey lan nga yëg. ah contentement rek am mbégte. di màggal fii. di ñaan suñu soxla rek commencé ko bisimilah tàmbale ko alhamdulilah rabil alamin waaw exact mel ne fii moom boo fi ñëwee loo fi ñaan suñu borom nangu ko ah loolu la de duñ fi ñaan rek ñaan bëgg nañ suñu borom nangul ñu ko tey naka nga prévoir pour ñaan yow ah lu lu xamante ni rek bu si duggee rek yàlla suñu borom di si ànd ak man rek ah, waaw célibataire wala marié <laughs> célibataire célibataire kon kay yow borom kër ngay ñaan déedéet teel na ah pourquoi teel la bàyyi ba mu am ba teral yaay ah. gi naka nga ko dundee ak sa mbokk soxna yi lay seetaan nga leen ah leen rek laa leen di wax tamit de nañ gëm rek lu ñu doon xam lu ñu tax a indi bu ñu paree rek ñu ñaan ci sëñ bi rek waaw. ngi lay saa ñu doon di xam jàmm ñun ñëpp defal ñu sutura lépp lu ñaan ci màggal gi ñu ngi ñaan yàlla nangul ñu ko barkeel njaboot gi jubal leen te suñu Sénégal gi yal na ci yàlla def jàmm yal yàlla boole jàmm ñun ñëpp jàmm ju sax barkeel Seydina Mahamad barkeel Sëriñ Touba. maam tey ñu la doon laaj fan nga jógee ba ñëw Touba lan bu ma jugee ko ba ñëw Touba maa ngi jugee ca boori Ndaraam Escale ñëw tubaa dëkk bu sori la waaye bëgg sëñ Touba rek moom ma tax a ñëw. mel na Serigne jar na ko. jar na ko xëpp na ko sax ma man man bi xàgg fa waaye jéem rek moo ñu andi. jéem rek moo ñu andi bëgg sëñ Touba rek. tey bi nga jógee foofu ñëw ci dëkk Seexul Xaddim bi. tey lan ngay yëg di waajal ma. sant yàlla bu baax a baax sam cawartaane ak mbégte ba mel ni maa ngi tey maa ngi mel gone gu ndaw gi door a judd ndax rek ak sawataane waaye doole ji xàggu fi waaye mbégte bi ba mbégte sëñ Touba rek moo may lool sëriñ bi sëriñ bi mooy sëriñ bi kenn rek la sëñ Touba kenn rek la xamul morom duñ ko nattal bépp kenn sëñ Touba kenn la xamul morom sëriñ Touba sant sant Cheikh Ibrahima Fall sant maam Thierno Birahim daamal Daaru Musti ah sant sunu sëriñ muy sëriñ Assis Fall moom sëñ Mortala Fall mm. màggal gi ni ma ko gisee mooy man am naa fi ñaar fukki at ak juróom-ñaar ci ren ci mais balaa ñuy ñëw ci màggal gi fan nga jógee tey ba ñëw tuubaa man maa ngi jóge fu ñu naan diwaan si la dëkk bi sëñ ma pàtti si la foofa ku fa ku fa koo xam ne ki jéggi ngi sab tànk teg ko fa nee na sëñ ma sëñ maam Thierno nee na yaram na safara ah nun nag da màggal gi gis nañ suñu bopp bu baax a baax a baax ndax sant nañ sëriñ bi sant nañ suñuy waajur it sant yi nit ñëpp sant nañ taalib yi fi ñëw yëpp sant gi ñu sant nag mooy lépp yemb na ci màggal gi loolu fas nañ koo def ci màggal gi ngir jëmmi sëñ Muntaxa Mbàkke ak jëm Cheikh Yor Fall li sëñ bi digle daal danañ ko def li ñuy tere kenn du ko gis suñu kër bu ko yàlla dogalee daal képp koo xam ne kii sonn nga ci màggal gi daal bu déwénee si boppam da nga gis sa bopp ku ci sonn ren ak ku ci sonn ren buñ bokk mukk ab taxawaay déwén kon nag loolu mooy sunu cant tey mooy sunu cant ëllëg yal na leen yàlla boole dimbale te dafa leen xeewal te rajo bi it muy rajo boo xam ne bi rajo xeewal la di télévision boo xam ne télévision bu la man nag maa ngi dëkk asilem ah kër soxna Mbay Makke foofu laa dëkke ma foofu laa dëkke foofu laa dëkke sant na leen bu baax sant leen bu baax màgg gi moom ñëpp ci gis seen bopp transporteurs yi gis nañ seen bopp ñëpp ci gis seen bopp képp ku fi ñëw daal ci tey liggéey ci màggal gi gis nga ci sa bopp mu mel ne màggal gi neexagum na te demagul fenn màggal gi moom neexagum ndax xar yaa ngi dee na yaa ngi dee ñuy bernde ñu jóge Ndakaar ak ñu jóge Touba ak fu waay julit ne nañ ko tàmbali woon nañ ko bu yàgg bu màggal gi tàmbalee rek lañ ko tàmbali ñu berndeel taalibe yi mm. ndax loolu lañ fi mu lu waay yor denc ko boo liggéey da nga ko fiy bàyyi te doo ci am da nga ci am benn bàkkaar kon nag lu suñ bi santaane lañ ko ci def rek magal gi moom mi ngi dox bu baax a baax a baax a baax ñu ngi lay jaajëfal Pape yow yow mi nga xam ne yaa yore télévision bi jërëjëf fu ngeen bàyyi ko nii Dakar waaw waaw da ngeen demee ba na ngeen ngeen liggéey bi ngeen di liggéey nag naa leen ci ñaax na ngeen ci fas yéene jub fas yéene ci liggéeyal sëriñ bi bu ngeen yooyu daal du ngeen ne loolu lañ leen indiloon waajal màggal gi ñu jëlal leen loon moo ko taalibe yi xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi naka la ñuy waajalee gan yi ñëw ñi nga xam ne ñooy door a ñëw naka lañ dundee màggal gi ginnaaw bi ñu egsee Touba santiment bi ñu yëg ci biir dëkk bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di doxantu naka lañ koy dundee ak gaa yi ñëw loolu lañ leen indiloon ci première partie bi waxtaan nañ ceeg sunu ay frères waxtaan nañ ceeg sunu ay maam waxtaan nañ ceeg sunu ay papa ñu xamal ni ñoom nii lañ ko dundee ñoom nii lañ ko sentiree ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci dëkk bi tamit waxtaan nañoo ñoom ñu xamal nañu niñ fa yéenee dalal gan yi génn seen néeg yi wàcc seen lal yi jox gan yi kon loolu lañ leen indiloon ci première partie bi ñu ngi leen di jaajëfal di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér